nag ñu ànd ak suñu xel rek bañ ci xuloo bañ ci ŋaayoo bañ ci dëddu xante dara ko jarut ndax ñi xam ne ñoom dañoo sànni la bu taxe ngay xeex wala nga dogoo ñoom bu fi béy ko ñoom mu neen dañoo nekkaat benn kon bu boobaa nag comme nag ñun ñëpp ay mbokk lañ ah kenn ku nekk na xam mu wax na xam fu mu war a bu mu wax lu ko cee nemmee ko ndax kii place bi moom ki ko soxla ak liñ bëri bëri kenn rek la ko yàlla jox